mercredi 22 janvier 2021 mbokk yi asalaamaaleykum ñu am mbégte saa su nekk rek di jàkkaarloo ak yéen seen journal de l'arène ma ciy ànd nag ak Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami. ci loo nekk. maa ngi sant yàlla bu baax. naka nga fanaanoo yëngu-yëngu yi. waa sant borom bi rek sant borom comme ni ma doon wax rek fanaan moom boo tëddee si jàmm yow si jàmm rek loolu kenn amul prime kenn ki mooy joxe prix bi mooy suñu borom bu la ko joxee moom sante ko ko yàlla di ñaan yàlla mu dolli. Babacar yal na yàlla dolli. amin wa sallam voilà mu am xam ne dañ koo yeewoo tey rek euh, muy Atou Diagne. Euh, ñàkk bakkanam Babacar euh, loolu lan nga ci mën a wax. waaw loolu day xanaa ah inna wa inna ilayhi rajiun borom joo xam ne du dañ. parce que moo ñu fendi woon te moo ñu fiy jëlee saa yu ko soobee. yaa ngi dégg kon defe naa loolu mooy li am. ñu koy nangu tamit en tant que jullit di ko ci santaat. di ñaan yàlla aji dem yàlla na te xaare ko aljana barki nabi bi sallallahu alayhi am nañ ci moom itam yàqin ndax la tax mooy fañ ko daan gis mu di fa ne di ci yëngu yëngatu muy liggéeyal Serigne Touba te wax dëgg yàlla ah moom yaakaar naa ne mooy liñ ñu fiy doye te itam ci la nekkoon kon daal lam fi doon def yàlla bu mu ci réccu dara dara dara ci fa nga xam ne fa la jëm barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana Babacar euh, commencé rek lii di journal bi ñu dem seetaan revue des titres daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 22 janvier 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb moom fu mu xëy tey ñëw maanaam Singapour daal la xëy tey doxantu fa ba mu demee nag maanaam Reug Reug la fa fekk ak ka nga xam ne moom moo di Ngalani yëglikaay bi ñu xamal ne nag seen jàmmaarloo ba daal tey lay am ci àjjuma ji 14h CMT maanaam ñaari waxtu bu jotee ba tegal dara maanaam daal ca lañ fas yéenee jongante Reug Reug bi ñëw na ci moom ak la nga xam ne am na ko ci ay at maanaam 27 ans la am kam ko séqal di Alain Ngalani moom ñeen fukki at ak juróom-benn la am maanaam 46 ans waaye am na ñoo xam ne ñoo ngay wax ci mbir mooma seen sey yaat ma loo ma ngeen xam daal ne na rëg-rëg moom faw mu def ndànk te itam ànd ak prudence bu leer nañ su ko deful ah ne na lu ne mën na ko caa fekk xawaan moom dib espagnol te daan bëri fii ci réew mi la mu xam le daal ne na kii di rëg-rëg moom ci combat bu facile a facile maanaam ak jaar jàll daal la jëm ndax moom daa jàpp ne kii di Ngalani amul benn dansé ci kanamu rëg-rëg maanaam daal amulu tàngoor ci kanamu ka nga xam moom moo di rëg-rëg loolu la ka nga xam ne moo di xowaan dal di gis keneen koo xam ne ni moom xëy na tey di décortiquer di wax ci combat boo xam ne bu nar a la muy may ndewaan mbay ndewaan nag wala boog mbay ñing may entraîneur u Tafatin ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 jàpp na ne daal ñëw na ci mbër yi ak seen ay points yoo xam ne jàpp na ne mane nañ ca ne na boo bëggee dégg dëgg daal ki nga xam ne nii moom moo di ci Eumeu Sène ci côté xeex moom ne na dangereux na ci de nit koo xam ne am na ay crochet yu doy doy waar ci xeex waaye tamit ñëw na ci Lac jàpp na ngir des maanaam daal yëngal la wala indil la ay jafe-jafe ci lu jëm ci ay uppercut mbay ndewaan daal tey moo moo xëy ngar daajoo sunu lamb wax fa ci lu mel ni ki noonu mel ni ki loolu mooy li nga xam ne ni moo ne ci xët bi bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi di sunu lamb dafa doxantu dem ba mbuur fekk fa waa mbuur bombardier ak mel ni ki ñoom daal soo bëggee dégg-dëgg bokkuñu genn kàddu goo xam ne ni moom la ñuy waxe maanaam assurance nga ca côté bee paka beneen côté ba bombardier ca beneen côté ba moo tax yëglikaay bi xëy tey samp boobu laaj fa nga xam ne ni moo di ca mbuur géej di dëkku ka nga xam ne ni moo di Bombardier ak ay rakkam sunu làmb xëy tey wax nu ko keneen koo xam ne ni moom la mu xëy di ko wax maanaam daal dafa yuuxu ba kàddoom sës muy Malick ñi moom moo leer ba des mooy làmb ji nañ ko ubbi nag nee na wax ji yëpp loolu mooy li fi war a ne nañu ubbi làmb ji ñoom ñu bëre parce que nag nee na yi ñuy def yëpp di yaal yaalee di dem ak ñëw du ko jar nañ leen wax daal lu leer nañ Malick ñi moo xëy waxee noonu buñ fa jógee dem ngalani mu mel ni ki yëglikaay bi na tey ci ajjuma ji daal boo bëggee dégg dëgg moom ci la mbir ya di am fa nga xam ne moo di ca Singapour Abou Ndour moo xëy tey moom tamit ni ki noonu Pape Demba Kane tamit di président MMA fi nga xam ne moo di ca Sénégal moom tamit daal daa mel ni kelewu combat ba daal ñëw na di ca wax ci diggante ngalani ak ka nga xam ne moo di rëg-rëg waaye tamit ci combat boobu ka nga xam ne moo di Bombardier ci njëkka ci njëkka jongante MMA ci réew mi moom itam xëy na tey di wax maanaam jàppale goo xam ne daal jàppale na ko mu koy jàppale ki nga xam ne moo di rëg-rëg di ko li nga xam ne ni moo di ndam daal mu am ko ca la nga xam ne moo di combat boobu ñii moom aw naqar la ñu am ba tax ñu xëy tey di ko ñaxtu ci record muy waa bokkal ñoom nag la leen metti mooy seen doom ja nga xam ne da doon ànd ak Eumeu Sène te yàlla andi woon fa coow ca kër ga ba nit ñàkk ca bakkanam mu bokk ca ña nga xam ne moom la ñu jàpp ay mbokkam nag ne nañ fi mu nekk nii daal la ñuy ñaan ci réew mi wala justice u réew mi saa bokkal moomu ñu atte ko mu xam fan lay féete waa bokkal daal loolu la ñu xëy tey di ko wax waaye man li ma xëy di ko wax dama naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy Atou Diagne ma ngeen xamoon ca es bu tarxiya mu jiite woon ko te yàlla jël bakkanam tey ñuy ñaan yàlla yal na ko yàlla jéggal xare ko aljana ndax nag li tax mooy ku ne xam na fa mu saxoon ak ca la mu nekkoon mooy di xëy ci Serigne Touba di ci gont te yaakaar naa sëñ bi boo ciy xëy ko a gont doo gën ci yàlla ne na yonent bi nee na wala sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala alquran ak diine ak jaami yàlla yi voilà loolu nekkoon revue des titres Babacar ñu daal di ñëw ak ñoom rek ci journal suñu làmb ñu ñëw ci diggante rëg-rëg ak Alain Ngalani di nag combat boo xam ne rek ay expert daal di nañ ci wax ku ci mel ni rek Yatmaloo rëg-rëg dafa war a def ndànk ngir rek gañe combat boobu kii tamit di xuwaan rek daal dina ci àddu xam ne rek ne kii di rëg-rëg euh, war na mën a gagné ki nga xam ne moo di Alain Ngalani mais balaa boobu rek dafa mel ni journal bi ñuy traité seen une bii nii euh, combat bi pareegul woon ndax fi nekk nii rëg-rëg remporté na loolu.

expert la ci wàllum sport de combat defe naa ne tey am na lu ci man wala ci xam loo xam ne ni ci dànkaafu rek defe naa ne war nga ko mën a bàyyi xel xawaan tamit di mbër nekk kon fii daan bëree te tey ñu gis ko defe naa ne ci MMA bi moom tamit jàpp na ne rëg-rëg lu facile la am waaw defe naa itam noonu mu ko waxee ndaa mel mbir yéen noonu la mujjee demee parce que yaakaar naa ne waaye daf mujj sa abandonné kon li ñu mën a def daal mooy ñoom ñëpp ku arbitre du soufflé te li nga waxoon tam defe naa am na njëriñ te defe naa tam rëg-rëg la olof di wax rek wax ja tabiul ci noppi tax jël na te leçon yi bi muy dem mu yóbbaale ko ba tax na yàlla def na mu génn ca mais di wax ne daal am na solo trop trop lii tey journal yi xëy ubbee doole nag dafa yemul te doole xale ak doole mag du benn kii di euh, Alain Ngalani moom daf ko magee lu bëri torop sax. ah bien sûr parce que 46 mm-hmm. ak 26 ak 27 ans moom <laughs> waaw presque mën nañ ne mm-hmm. euh, bu ñu jégaluñu si kàddu mais presque tuut nga mat ko wéy jur. Mm-hmm. kon defe naa loolu âge bi sore na waaye nag âge bi tamit des fois mën na sore waaye ah boo luul yow xale bi itam mën nga am lu la naqari parce que li tax nit ki moom ci entraînement ak li muy liggéey noonu la yaram wi di fonctionner dafa fekk na nag xale buy liggéey ni mu war a liggéey ak mag buy liggéey ni mu war a liggéey mhm. ah wax dëgg yàlla bu xale bi amee tuuti fulla mhm. pour mag ba yóbbul ko dana xaw a jafe lool xëy na loolu moo mujjee feeñ ci seen diggante voilà di féliciter rek ki nga xam ne moo di euh, rëg-rëg mhm. ñu mu foofu rek daal di ñëw ci ki nga xam ne moo di Mbaye nga mu ñëw ci diggante combat Eumeu Sène ak euh, Lac de ku nekk rek mu ñëw ci sa faiblesse voilà am na solo Mbaye Gningue xam nga ko Mbaye bon damay dégg turam da ngay dégg turam mhm. moom mooy entraîneur Tapha Tine gis ko mooy entraîneur Tapha Tine moo wax la ko tey nga jàpp boobu ah waaw moom nag euh, entraîneur Tapha defe naa tamit war na man a wax ci ñaari adversaires yi mhm. parce que li tax mooy bu dee Lac de la bëri na ak Tapha te moom moo ko indi woon bi ko Tapha bi ko Lac di daan mhm. xëy na euh, Lac ak Tapha bëree guñu waaye terewul xam na ñaari mbëri bu baax moom Mbaye Ndewane ndax da doon bëri ba bàyyi bëri di tàggat wax na si ñoom ñaar ci côté xeex wax na dëgg ku ci am na loo denc ndax bu dee Eumeu Sène la comme waxee ay crochet ci dangereux loolu moom am na yaa ngi dégg lak itam ci côté hyperkit mbër mu ci dangereux la maanaam mbër mu am hyperkit la te hyperkit am mën a indi problème kon ñaari mbër lañ yoo xam ne nii soo bëggee dégg-dëgg ku ci ne am na loo denc comme ni ko Mbaye Ndewane waxee ci wàllum xeex et puis ci wàllum bëri te tamit ku ci ne am nga ay faiblesse parce que sport moo tëddee noonu mënoo fort ci côté yëpp da ngay fort fii am foo xam ne faiblesse la faiblesse boobu nag ña koy séqal ko jàngat wala lay tàggat ba ñu moytu loola lii sa adversaire tamit suy ñëw si bés ba moom say faiblesse lay jéem a mm-hmm. jaar pour mën la gagner fi mu foore des fois di ko fa fekk du wóor parce que boo ko fa fekkee mën nga am mu am am fa loolu naqari mais di nga jéem a exploiter moom fa mu faible pour mën a jàll mais jàngat bu am solo daal Mbaye def na ko tey ñu koy nuyu di ko ziar dëgg la Babacar ñu dem écurie de Mbour ki nga xam ne nag moo di Bombardier Pakal ak assurance mu am ñàkk déggoo boo xam ne rek dafa nekk seen diggante waaw muy buñ ne ñàkk déggoo mooy parce que dama naan ci sama gis-gis wala li ma mujjee amee ci ñoom mhm. amuñu problème par rapport ak ci li ma ci li ma mën a wax mais xëy na ñàkk déggu bi mooy bokkatuñu écrit parce que ñoom ñëpp ku ne xam ne ne ñoo Bombardier ñoo doon an muy pakala muy assurance ñoom basoka ñoom ñëpp ñoo nekkoon benn écrit bi ñu doon wax mbuur nekkoon fa di défendre couleur mbuur dem nañ nag ba benn moment a ah loolu xëy na comme li ñuy wax rek ñu ñenn màgg nañu ku nekk ne ngay bëri sa daara assurance am écrim pakal am écrim basoka am écrim booba tamit continuer yaa ngi dégg loolu nag warul tekki que diggante day am seen di maanaam dañu am diggante buy ñagas du ma ko yaakaar xëy na dafa fekk ne olof fa koy wax njàng-njàngaan boo mokkalee wer sa daara xëy na bi ñuy dem dañoo jàpp ne mokal nañ ba tax ñu bëri daara waaye tamit bu ñu àndee doon ben defe naa loolu tamit moo leen di ëppal njariñ pour man parce que tàqalikoo bi des fois du bëri njariñ parce que li tax mooy ku ci ne da ngay soxla sa morom ba fi ñu koy waxe nii ah kon defe naa bu ñu àndoon def benn écrit muy mbuur tamit ñoom ñi ñu fexe déggoo mhm. defe naa tamit da leen di gën a may doole rek mhm, loolu rek la tubaab di wax ne li ñoo fait la force waaw yàlla mhm. jëkk ñu ko wax ci alxuraanul karim waaw ànd ci bu mu yàlla gi rek maanaam bu ñu waxee mooy ànd te yàlla tax pour que su ko defee yërmande yàlla mën dëgg la mhm. Babacar xaar bi yàgg lool ñu mhm. bëri namm làmb kii di xam ne moo di Malick Ning daal di hausser le ton rek ngir li nga xam ne moo di combat yi daal di démarrer loolu loo ci mën a wax Malick Ning moom moo jiite école léegi écrit yi nekk mhm. fa nga xam ne moom mooy Pikine ginnaaw raay defe naa dafa war wax parce que li tax mooy moom ñoom ñoo yore mbër jiite écrit yi kon defe naa ah wax na pour que nag affaire yi war a ubbi effectivement noonu la war a dafa war a ubbi fi mu nekk nii loolu moom ñëpp wax nañ ko ñëpp moom la wax waaye ndax dina ubbi foofu la question bi man fi mu nii moom ubbi ga ci boppam man bu amee daal dina nekk lu ma wax dëgg yàlla néew ma du am de waaye parce que affaire yaa ngi dem mhm. saison baa ngi dem mu ngi dem mois de février mhm. la ñuy dugg bientôt buñ fa jógee mars avril dañuy dem ci koor ga après par la suite mooy loolu kon nag fi mu nekk nii daal mais nag ñu ngi déglu rek bàyyi mm-hmm. état bi moom mu yore cëggal guyam ba xool lu muy def waaw ba tey rek di ñëwaat ak ñun nag ci kii xam ne moo di rëg-rëg mm-hmm. mu mel ni combat bi nag dafa nekk loo xam ne da ko waroon a gagné rek pour euh, daal di grandir gën a màgg gën a màgg am na solo mu mm-hmm. mel ni kon loolu rëg-rëg loolu la xëy tey ñëw ñu nuyu suñu frère Abou Ndour waaw gagné ko ngir màgg defe naa loolu tamit mooy li waran am te am na mujj na ko gañe kon defe naa rëg-rëg mu ngi bëgg commencé nag di am di màgg comme ni ko abu waxee ci wàllum MMA mhm. waaw muy loo xam ne itam defe naa ne lu am solo la parce que mbir moom boo ci duggee li bon daal mooy defantu defantu moo wóorul mhm. waaw booy sóobu na nga tooy mhm. tooyal xëpp waaw parce que dama déggoon ci théâtre ba waaja ne naan mandee ca gën boo mandee demal tëddi te bañ yàqal ñi naan waaw moo tax nag duggantu baaxul nit booy dugg rek dugg nag ci tooy ci xeet waa no Vox Arena bañ cee tooy da du wër parce que nag li tax mooy ay liggéeykat a fi ay jàmbaar mm-hmm. ay jàmbaar a fi mm-hmm. ay professionnel a fi te defe naa foofu nag boo fa duggsee mm-hmm. yaakaar naa yow tamit di nga leen soxla dinañ la soxla comme li ko olof di waxee moo tax ak Vox Arena ak Babacar moom loolu moom waaw xeex bu dul jeex la kontaan continuer macha allah noonu lay demee du soobee suñu voilà bu ñu jógee foofu rek ñu dem ci kii di Pape Demba Kane nekk président président MMA bu Sénégal mu daal di ñëwaat ak ñoon ci combat rëg-rëg bi wax rek li nga xam ne moo di clé yi waaw maanaam caabi ji ubbi combat bi daa mel ni ji nag moom na ko Pape Demba Kane waxee moom mu jiite MMA ci réew mi mm-hmm. rëg-rëg daa mel ni mujj na for caabi ja kon mm-hmm. ba ubbi buntu ba ba gagné combat ba kon defe naa ñi ñëpp ñu ma lay wan ne Sénégal tamit MMA mm-hmm. léegi nekk na fi xam ne déjà ñu koy commencé di ko doxal parce que tey gis nañ ay sénégalais di ko pratiquer ay sénégalais di ci dox di ci wax mm-hmm. muy sport boo xam ne tamit dina gën a yokk rek comme ni waxoon sànq rek mbër mm-hmm. ñu gën a ubbee ko au niveau international mm-hmm. pourquoi pas yeneen sport ñu dolli ko ci pas MMA kese te defe loolu c'est possible pour ñoom quoi c'est possible pour ñoom xibaar ya jaar fa ndar keppe Babacar la demee <laughs> di la bëggee ñaanal jàmm encore une fois mm-hmm. ami rek toujours elle est belle ah elle est elle est mignonne mm-hmm. ah, lañ koy waxee ah <laughs> noonu la fa demee waaw mais il donne de l'argent <laughs> voilà loolu yëpp mu ngi koy def kon macha allah kii mooy amu Diouf sama benn coach nag bu ñuy wax njàmme ma koy nuyu di ko ziar mm-hmm. ci euh, ànd jàppoo si mu ne ngay xool ami rek del xool caméra bi kon maa ngi nii di xool caméra bi waaye problème bi mooy jigéen daa bëri yërmande boo toogee moom xool ko pour man du garaaw loolu la rek may bëggee ñëpp di ziar ñëpp ñëpp di jàmm non moo baax sax jàkkaarloo mm. <laughs> ah yow itam <laughs> boo mosee jëw xam ne jàkkaarloo daq boo mosee jàkkaarloo xam ne waaye nag dañuy faw ñuy jàkkaarloo xulle di la bëggee di nuyu Abdou di nuyu El Diouf ah waaw moom l'homme de kii xam nga rek moom tout le temps waaw non moom mu ngi def tout moom nii la koy def moom moom mhm. macha allah wàllu montage moom damay wax que ni moom lu ngeen fi gis muy rafet ngeen di ko coow jàpp leen ne El Hadj Diouf la kera mhm. père Gaston Mbengue wax na ko parce que loolu moo lay wane nit ki la ma la waxoon liggéey da nga cay ne rek mhm. ne ca rek waaye waaw non xulle xale la boo xam ne mu ngi ci aw yoon na jëfe ndigal rek te bàyyi tere rek te mm-hmm. nangu rek nangu day jël cëru bañ bu nangoo rek dina ci génn waa man daal li may bañ mooy ñu ne la nii nga ne noo du nii non mm-hmm. bu la nee du nii sax te mu leen du nii laajal ki leen du nii ba xam fu mu lay dugal bu la fa dugalee nga continuer noonu la demee voilà jërëjëf Babacar jaajëf di nuyu ah, du man a ñàkk ah faw ma nuyu ko yaa ngi ci ba léegi waa sëñ daam borom Parcelles Assainies sëñ daam mu papa ma solal lii non yow dinañ la solal man maa lay njëkk a solal ba pare keneen door laa solal ajjuma maa lay solal bu soobee suñu na ko ñëpp dégg fan nga génn ak man grand bu bu wala robe waaw xam naa li jàppale la xam nga man nag dama yor soxna mm. macha allah mm. xam naa li jàpp jigéen xam naa li ngay xam naa say style yow bul wax dara surprise laa lay defal melal ni kuy photo woo rek maakar neex na voilà chers téléspectateurs fii la ñuy tey rek di leen jox dig daje ëllëg allah